salaamaaleykum monsieur le gouvernement naa def naka yi tey baa ci jàmm monsieur le gouvernement am nga deux minutes ma am lu ma la wax am nga deux minutes waaw kay merci monsieur le gouvernement avant tout sax damay wax ci match Sénégal bi ak billetterie yi xam nga luy numérisation du foofu la àdduna bi toll ñun Sénégal moom xanaa moom moom Sall bi finalement ba mën ko maa def sama yi Monsieur le gouvernement man kat dama gis ne match Sénégal bii nii dañ ne supporter ñun supporter kenn amul droit am plus de cinq tickets loolu ngeen ñu wax yéen a am cinq tickets waaye ya soo demee ba jënd ba pare ba retourné da mat ay ay cinq gras yooyu cinq gras ñu yor ku ci nekk plus de ay di ko jaayaat nee na ñoo ñoo tudd leen ay revendeur nee na dañoo investir ay millions boo ne leen ticket yi ñaar lay jar ñu double prix yëpp ticket yi maanaam képp kuy baadoo la moom doo seetaan match bi <laughs> wala sama genre yi nga xam ne dañoo bañ corruption duñ seetaan match bi mujj ma am ticket ndax man dama jëndee ticket lu extra luñ koy jaayee socc ba wallaay achib dama ko jëndee lu extra luñ koy jaayee bref. monsieur le gouvernement ngeen ne yéen seen diggante yàlla mënu leen a defar application. boo xam ne day jaay ticket wu stade da ngay toog fi nga toog commandé sa ticket ñu jox la sa code QR nga dem buntu stade wane ko dugg mënul nekk s'il vous plaît wala li mu nekk lekkukaayu xaalis moo tax ngeen ñë eh, jimbalantee jóg muy ut ut benn pexe waaye yéen xale bi du ko dàq saal bés eh, moom day wax rek moom day wax rek monsieur le gouvernement pardon kii laa da waxal léegi lu tax yéen Si vous nekk ci réew mi développeur 15 millions ñu wutal une application bu s'il vous plaît monsieur le gouvernement bref sax loolu sax du sujet bi xam ngeen pour ñu am extra fay ah, monsieur le gouvernement Tivaouane de pour ñu am extrait de naissance dañuy fay onze mille cinq cent dinañ leen dawloo dawloo dawloo ba ñu sonn ñu doog am extrait de naissance wut këyit fii wut këyit fële boole ko onze mille cinq cent doog a a am extrait de naissance pendant ce temps waa xam ngeen Kaolack monsieur le monsieur Serigne Mboup xam ngeen ko ah monsieur le gouvernement xam nga Serigne Mboup Serigne Mboup de ci moom laa doog a xam ne liggéey ci deret lay nekk wallaay asib liggéey ci deret lay nekk demul fenn jàng nu ñuy liggéeyee waaye daa judd judduwaale jom ak fulla ak ngor ak deretu liggéeykat ba tax na gis nga wàllum extrait yi Kaolack ku ko soxla sa sa kaw lal ngay jaaxaan dugg na danga soxla extrait jël sa téléphone wala sa ordinateur commandé si extrait boo koy jëlee jarul sax ngay wàcc scooter dangay tàllal sa loxo rek waa jox la ko nga continuer <laughs> loolu liggéey loolu liggéey la monsieur le gouvernement damaa bëggoon waaye gone gi li wax lu mu doon damaa bëggoon a xam monsieur Serigne Boub moom li mu def Kaolack dañ ko mënut def ci mairie yëpp chez vous monsieur le gouvernement yéen tamit nag ah monsieur le gouvernement man ci effaire yu extrait de naissance yi xamoon naa ci benn ndaw su am jom ak ànd ak yeneen yi jigéen ñu tuddee leen digital nisa yaakaar naa ñoom la tudd de digital nisa ñu fi créé woon seen kayitu judd picc nañ ko fu ne ba léegi gisuñu financement bu leen mën a tax ñu créer seen application ba nga xam ne bépp li liir bu judd tooy xepp dañ lay jox takkal sa extrait sa nànk sa tànk lu tax loolu financé wuñ gone yooyu Sénégal gone yaa ngi fi am talent duñ exploité seen talent ah ñu numériser dëkk bi ngeen lànk rek parce que lekkaayu xaalis la permis fañ koy wutee lañ cay lekk xaalis kayitu judd bax yi nopp ah certificat de domicile loo ci soxla rek kayit kayit par force monsieur le gouvernement bu dee di ngeen liggéey wax leen ñu ko bu dee liggéey leen ngeen wax ñu ko aussi dëkk bi dañoo toll ci jamono numérique ku ci nekk kayit bi nga soxla war ngaa mën a teg sa téléphone bind ni bi bind dugal say données njox la sa kayit yàqum xaalis gi métti na trop ak corruption gi ci dëkk dimbal leen ci yéen tamit nag monsieur le gouvernement yéen tamit nag sonn nañ li ñuy dund métti na trop nag yéen tamit nag ah voilà asi monsieur le gouvernement moo xolamu rek